parlementaire mmh. jàppale PDF ñu dem jusqu'au bu la fay tukkee est-ce que du jiital nit ki ba pare peut-être ba ko parce que accusation bi euh, commencement bi ba ci fin bi yëpp Amadou Ba seen candidat lañ ci tudd waaw xam nga <coughs> tout citoyen est joxe ci xalaatam mmh. ci bépp problème bu am duma ko bañal sama collègue Abou mais ñun en tant que député suñu wareef mooy bu commission d'enquête ubbee biir assemblée nationale suñu wareef mooy ñun askan wi ñu fi teg ñu leeral. donte ku ak ku mu mënoon a dem. enquête parlementaire bu fi mës a ñëw. ñu juge nécessaire ñun député yi ñu taxaw leeral. waxuñu nag waxee sa bakkan wala waxee politique wala wax lu dul dëgg mais lépp lu mës a ñëw assemblée nationale ñun député yi mu mu mu jar ñu ubbi enquête parlementaire dañ koy taxaw ñaata enquête lañ fa ubbi. ñaata nit lañ fo woo wuy ñaata nit lañ fa woo wuy si wuñu ak yeneen ak yeneen ñaata lañ fa déposé nee naa la bépp bépp Guy Marius Sagna parle Guy Marius Sagna du waxi waxam xam nga loolu du ma waxi waxam député la aussi mm. data xam nga lu doon ma waxi waxam koo xam ne askan wi la yónni joxoo leen cër du ma wax ay waxam fii daal mooy enquête bi beneen bi ne la bu fekkee ne présenté na lu am importance ah, wala loo xam ne ay lu lekk dëgg loo xam ne dafa fondé ci ay vérité yoo xam ne nit mën na ci wax mën na ci statuer loolu dañuy taxaw ñun en tant que député en tant que parlementaire askan wi teg fi ñu wax ci. léegi nan ngeen di xamee ne dëgg la. beneen bi alors que saytuwu leen ko. xam nga yow tey jii dama ne la yow Fatou Abdou tey jii bu fekkoon ne Bougane mi bu la defaloo émission nga bañ koo invité du ñëw fii am na lu fi jaar assemblée nationale lu rëy. ñu war ko saytu ñu woo fi kilifa gu mag gi ñuy gi ñuy wax ne moom la ñuy waxal mu lànk ba léegi tegu fa tànkam ñun ay député lañu. kay kan la kooku ku ñu respecté ñu respecté la. seen leader ñoom fii lañu ubbi enquête parlementaire convoqué ko ñëwul. ñan kon ñoom lan lañ ñuy jàngal. yow bu fekkee ki ngay àndal def dañ ko taqal mu ñu ñu ubbi enquête ñu woola la ñëwoo yow yaay wëlbatikuwaat ñëw di ñu ubbiloo enquête kan. du mën a nekk benn ba pare li ngay wax dara amu ci wax nga ko junni yoon ñu saytu dara amu ci duñ ci duñ ci attardé wu lii askan wi dafa nekk loo xam ne lu mus a am ñun ay député lañu nekk luñ ci ma sama lu dul ma dem lu dul le peuple sénégalais kii li muy wax suñu suñu candidat ñun duñ ko nangu mais nee na am nañu preuve dañ leen xaar ak seen i preuve mm-hmm. ban ñëw andi seen i preuve teg mais fu da leen di soutenir la wax xam nga soutenir uñu leen mm-hmm. ubbi enquête enquête ak soutenir bokkul gis nga réew mi démocratie dafa war a triompher warul jël suuf kenn mësul gis ñu jëm élection ñuy accuser ay nit à tort et à travers li gën mooy ñu leeral ko parce que bu ñu ko leeralu lan la ñuy wax ñun ñun ñoo bañ ñun ñoo bañ ñu leeral président Macky Sall nga xam ne il a les mains liées su waxee fii ñu ne moom mooy contrôle justice bu waxee fii ñu ne moom mooy contrôle conséquence mais est-ce que mm-hmm. tey jii yéen seen wax yi ngeen doon wax yéen opposition bi tey tey tey jii waxu maanaam wax amu leen gàcce parce que président Macky Sall bu moo doon contrôler est-ce que tey ji li xew dina xew benn li jar a gën a njëkk a njëkk a ubbi enquête damaa jëlale sax li waa PDS di wax mais fii am na lu fi xew candidat yoo xam ne dañoo bokkoon ci benn parti buñ dissoudre lan lañ wax ci parti buñ dissoudre te tey seen seen candidature jàll na kon ñun ñuy ay ay député lan la ñuy ragal di joxe suñu position ne dañ koy soutenir dañ koy soutenir parce que soutenir ko mooy tax suñu institution yi gën a dëgër soutenir ko mooy tax ñu xam fan la dëgg féete mais du ñu ñëw rek ñu baaxale ko bi mais soutenir maanaam candidature candidature kenn taxu ñëw jóg lu dul bu Amadou Ba waaye soutenir suñu démocratie triompher soutenir que ce pays ñoom bu ñu accusé mais mais <laughs> leer nañu mooy gën a neex sax ñu setal ko dañ koy gën a setal assemblée nationale ñu dañoo bind commission d'enquête wax ne am na juge yoo xam ne dañoo jàpp que ni am na lu dox seen diggante ak certains yoo xam ne ay candidats lañu woon donc c' est sur la base de mais bi ñuy wax Amadou Ba c' était dans le cadre bi ñuy def communiqué bi wax ci affaire ci wax ci affaire Thierno Alassane Sall affaire yooyu noonu quoi turu Amadou Ba moom génnul ci ah, benn ci benn lettre ci benn gisuma ko man mais li ma xam mooy même su ci président Macky Sall génnoon rafet na jaadu na yelloo na askan wi xam dëgg gi xam ñun ci lan la ñu toog ñan ñoo yor suñu suñu suñu suñu suñu justice su réew. man foofu laay waxee parce que élection fii nit yi dañu war a gëm yàlla. président Macky Sall da ngay ñëw taxaw tey assemblée opposition tey sama mbokk waa waa Pastef taxaw na tey jii dóor nañ leen 1-0 parce que un juge nee na nañ dugal seen candidat nañ ko dugalaat ci liste bi. mais kon kay justice boobu gëm nga ko su defee leneen nga taxaw na leneen président Macky Sall nañ ko génne ci wàll moom mi ngi gouverneur réew mi jox ñeneen séparation des pouvoirs du pour rien du tout ñun ñu am ko ci réew mi li ma xam mooy dina déglu nit ñi parce que c'est un homme de dialogue dina xool réew mi di saytu tamit mais li fi xew nii nañ ko leeral buñ ko leeralee da ngeen xam ne ne ñun on a rien à voir dedans. Ah, alors ah, ah, Ania honorable euh, suñu ko leeralee suñu ko leeralee soupçon la pour le moment. Mm-hmm. dëgg feeñ. Mm-hmm. ñu ne euh, ki nga xamante ne loolu ñuy wax juge yi dëgg la. <coughs> élection yi ñu ñu reporté ko. loolu ci ci ci ci kan ci kan kan moo ci am avantage. ci kan avantage ñun xoolal élection ñu def ko tey ak suba ñun benn la ci ñun. ah déedéet tey ñëwaat xam nga lu tax ma di ko wax à chaque fois. élection bu amee ci réew mi may ma tuuti rek may élection ñun. Hmm. dañuy def suñu liggéey du caagaana dan nañ ñun nañ reporter élection yi wala nañ ko avancé wala nañ ko reculer. def sa liggéey mooy am na enquête boo xam ne ku ne xam na ne lii see lii lu lu lu mus am la. képp kuy citoyen ci réew mi war nga nangu ñu leeral nañ waxante dëgg ñi mun kuy kuy yeewoo ci Sénégal rek lii war nga nangu ñu leeral ko. Mm-hmm. parce que benn côté ay accusation yu rëy la. beneen côté bi ñun fan lañ nekk du Sénégal Sénégal la ñu nekk di wax di ñoom ñoom suñu démocratie moo gën a kowe ñoo mel ni ñoom it tey jii lii am fi mais dafa dafa jaadu ñu leeral ko beneen bi mooy président Macky mais moom ba muy woote dialogue am na ku ma dégg fii mun a jaloog bi amul amul njariñ wala am na ñu ci ñu ci bénéficié wu ñëpp ci bénéficié wu. dialogue bi ci la ñu wàññee parrainage dialogue bi ci nit ñu bëri demaate bokk ci élection yi di ñëw dialogue bi ci la président bu ñu wax ne président Macky Sall candidat euh, troisième mandat bi mu bëggoon a def yow président Macky Sall mosulaa wax ne day def troisième mandat daf na woon su jotee dana ci wax te ba mu ci waxee daf na defu ko. Mhm. kon dialogue bi li mu génne seen ponk yi ñu tegoon yëpp président Macky Sall daf dafa def <coughs> bàyyi leen dem leen waxtaan ñoom ñoo waxtaan ba définir li ñu bëgg yëpp ñu andi ko assemblée nationale jàpp lan la woon kon. askan wi moo taxoon parce que dialogue bi askan wépp a fa daje parti politique yi ñiy représenté kenn ku ci nekk gox ba nga nekk ñëpp a fa woon kon le président Macky Sall dama bëgg ñu ngi koy wax toujours gàcce ngalaama ci réew mi du def lu mu war ta def du ko wax. te kenn du ko mës dégg. d' accord Annie alors euh, euh, Ma Malick euh, euh tey euh, lu mel ni quand même lu lu la ci Sénégal pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal mbirum soupçon de corruption ñu tudd ci bànqaas bu mag boo xamante ne moom mooy conseil constitutionnel est ce que jarul aussi ñu dem jusqu'au bout pour leeral li nga xam ne moom moo ci tukkee. comme ni ngeen wax l'affaire est inédite bon kenn mosu ko gis sax dans l'histoire euh, mm -hmm. du processus au Sénégal man mhm. nañ wax loolu euh, man je compatis avec le le PDS avant même ñuy àgg ci phase phase en fait saisir l'Assemblée nationale parce que euh, dama jàpp ni bon peut-être ni ñu écarter le candidat Karim Wade sur une binationalité bon nañ waxante dëgg Karim Wade yaayam tubaab la dafa juddu nekk métis loolu aussi dafa am lenn loo xamante ni dafa war dañ ko war a dugal dans les réformes de yi ñëw demee parce que c'est trop léger nañ wax ne dëgg Barack Obama Kenya la dëkk fa la juddoo il est devenu président des États-Unis dans un dans monde où bon voilà la géopolitique bon franchement ces débats là man loolu laa gëm loolu nañ ko loolu c'est dañ ko war dañ ko war a dépasser euh, maintenant beneen bi mooy dama jàpp ni euh, franchement euh, assemblée nationale ñun ñëpp bon à l'assemblée règlement intérieur assemblée nationale mission assemblée nationale voter les lois évaluer les politiques publiques ah enquêter sur le gouvernement ça mais man franchement pour man un problème de corruption de conflit d'intérêt mais c'est le procureur qu'on doit saisir de la République waaw ah, loolu aussi problème bi li gars yi di inquiété wu mooy cette commission parlementaire bon euh, voilà su fekkee ne dañu parce que lépp membre du conseil constitutionnel c'est des justiciables ah c'est-à-dire on doit saisir le procureur le procureur enquête sur la corruption après bind le conseil supérieur de la magistrature le conseil supérieur de la magistrature bu fekkee day def mais levé mu def levé pour ñu entendre leen parce que l'assemblée nationale nañ ko vérifier ah je peux me tromper on peut aller sur le règlement intérieur mais man franchement mënuñu ma convaincre sur le fait que la commission parlementaire mooy scénario bi gën a adéquat pour que ñu dem leeral ko parce que corruption la ñu wax conflit d'intérêt on ne parle pas d'un détournement d'un ministère on ne parle pas d'un d'un projet de l'État on ne parle pas de l'évaluation d'une politique publique on ne voter des lois donc loolu moo nekk dans les le préambule même des textes du règlement intérieur de la loi organique de l'Assemblée nationale loolu moo ci nekk bon on peut ma nag on peut ma convaincre je peux me tromper également parce que man je cherche pas raison. Euh, en tout cas wax ji euh, franchement euh, bu fekkee dafa jëm ci reporter élection yi bon sénégalais ñu ngi xaar parce que bon njort bi bari na te report bi bu fekkee ne aussi déggoo la déggoo pour reporter élection yi loolu moo gën a garaaw maanaam <laughs> li ñuy sax recherché. fekkee dañ ci bëgg a déggoo pour benn scénario pour reporter les man xalaatuma ko xalaatuma loolu euh, malheureusement on est à un mois de l'élection présidentielle exactement exactement on est à mois de l'élection présidentielle mm-hmm. une semaine de la campagne électorale le débat politique de la campagne électorale malheureusement kenn mënu cee dugg kenn mënu cee waxati te j'étais en réunion de avec la coalition Déthié 2024 on parlait du port sec de Kidira comment ñun lan lañ koy intégrer dans notre communication